tumu dañu daal dugg ci euh, waxtaan bi daal di koy door ak situation euh, ki nga xam ne euh, moom mooy Ousmane Sonko tey nekk 33e jour grève de la fin mu nekk nag mbir mu doy waar boo xam ne mm. jamono ji Ousmane Sonko mu ngi koy dund ba son avocat maître Ciré Clédor li mi ngi doo alerte di wax que ni son côté gauche jamono ji ni Ousmane Sonko sentiratu ko. waaw maa ngi sant sama borom bu baax man fii suma fi dee ñëw sama benn xarit nee na ma. yow soo dee ñëw di waxtaan du ñu xam ndax borom baatin bay wax wala militant bay wax. ma ne ko man fii heure bu ma dee wax wax dëgg fa yàlla yàlla may na ma waxeewu ma bakkan quoi. gis nga Ousmane Sonko bi bii may ñëw di wax nii ci moom. Mhm. su ma ci yàlla wanul woon lu leer damay tey ci mbiram. ah parce que damay bañ vaar kat. taxaw fii wax ci lu xaaju fi wax. nga dawal six mois yàlla weddi la te man sama première eh, émission bi ma fi defoon je pense que mois de février février bi nga ma laajee ci Ousmane Sonko la ma ca waxoon ba tey waxewu ma bakkan fii nag damay ñëwaat wax ci Ousmane Sonko dama bëgg. Mhm. communication entourage am nan ko seetaat quoi. ok euh, ay soxnaam ñu ngi génn di wax. Mhm. ay avocat am ñi ngi génn di wax. waa partem Pastef ñu ngi génn di wax. ñetti voie de communication am nañ ko. te doo xam franchement boo ciy jàpp quoi. man maa ngi doon ñaan entourage Ousmane Sonko ñu am benn voix crédible benn kese buy wax ñëpp xam fu ñuy taxaw parce que Ousmane Sonko su fekkee ni. Mhm. Euh, entourage waaw son état de santé réel. Mhm. bu ñett di waxandoo bu ñaar di waxandoo na kenn di wax. su fekkee Ousmane Sonko dañ koo joxul lekkam. Mhm. dañ koo joxul lekkam. bëgg ko forcer seen lekk yooyu ñu xam ni ñun dañ ko bëgg a empoisonné su ko saa bu ko defee ñu jël suñuy responsabilité. parce que parce que dëkk bi nii soo gisee kenn xamul fooy taxaw. dëgg la la fa information Ousmane Sonko ñiy waxandoo moo bari. ok entourage am nanu nanu waxtaan seen biir am benn voix crédible buy wax kese. pour que ni ñu mën a xam euh, lan moo war a grève de la fen bi. pour que kooku su waxee ñu xam ni ñëpp a waxandoo benn voix. parce que soo gisee sax le camp adverse ci pëccëxoo googu lay xaw a profité di ñu gëmloo naan ndekki na reer na te dara amu ci. mais parce que parce que Ousmane Sonko su fekkee ni day def grève de la faim. Mhm. ngir maanaam euh, bëgg a sauvegarder son integrité physique bañ ñu empoisonné ko. bañ ñu jox ko seen lekk yow mu wóoruwul. Mhm. na nga ko wax ñu xam su ko defee peuple bi xam ni ñii kii ñii dañ ko bëgg a ñu xam su boobaa le peuple va prendre ses responsabilités. mais su fekkee ni nag moom moom mooy defal boppam grève de la faim man am naa ci sama gis-gis ci baatin lu ma koy wax parce que ñetti. ñett ñooy déroulé fi mu toll nii. muy ban ak ban. yàlla mi ngi déroulé. Mhm. Macky di déroulé. Mhm. Ousmane Sonko di déroulé. ku si nekk mi ngi déroulé. kii d'action ok yàlla mi ngi déroulé son plan d'action. Ouais. Macky Sall mi ngi déroulé son plan d'action Ousmane Sonko tamit sunu waay la mi ngi déroulé plan d'action ñetti plan ñooy déroulé mais man benn plan bi ma choisir. mooy bu yàlla. lan la yàlla namm ci réew mi. su ko defee man su ma xoolee ni Ousmane sonk la yàlla féetal. man moo tax ma ñëw féeteeg Ousmane ko de. ok man je n'ai pas de choix à man xoolal yàgg naa ko fi wax man Ousmane Sonko. mais est-ce que mën nga ñu détailler ci euh, mbir euh, moom mi. Ousmane Sonko daal. Mhm. grève de la faim bi mu dégte nii. waaw nee naa li ko teg nii dafa foog ni gars yi dañ ko jekk wax wax naa ni jekkuwuñ ko. dafa bokk ci déroulé li yàlla di déroulé. dafa am àpp mm. nag. ok yaa may dégg boobu àpp saa bu jotee. sa xoolal boobu àpp saa bu jotee man dinaa ñëwaat fii ni Ousmane Sonko génnam jot na jóg leen mu génn. yaa may dégg mais instant bi bëgg a grève de la fin bëgg Macky Sall mënu ko teg pression ba mu génne ko Macky sàll su fekkoon ni nee na ko Ousmane Sonko. ah bis bu naanul bis bu mhm. naanul benn kaasu meew bii. tey dee tey. Macky sàll dal dina man de sama xalaat lay wax mën na ne euh, bu ko ko kenn parce que Macky Sall est dans sàll logique Macky Sall. doo ko teg pression ba mu wàcc. ok Baara Ndiaye ngi nii grève de la faim nii nii mais li mu war a dem Touba tey te sëriñ bi yóbbu woon ku toll ni Cheikh Abdou Samad. Mhm. moom ak sëriñ Mountakha moom moom ak Cheikh Mountakha ñoo yem ci xilaafa gi. dëgg la baayam baayam baayu sëñ Abdou Samad mooy mooy euh, kii mooy doomu sëriñ tubaa la. Mhm. kii Souaïbou. moo ko jur ni mu juree euh, kii Bachir sëñ Bachir mi jur euh, xalif bi. noonu la jure bàyyi kii sëñ Abdou Samad. yónni nañ ko mais bëgguñu ko recevoir. tey jii Macky Sall bëgg dem Touba ñu bëgg bëgg ñu recevoir ko kenn du kenn naru ko foon recevoir. amiin ah looloo tax mu looloo tax mu libéré. Cheikh Bara Cheikh Bara parce que mu nit yaa ngi ko doon xaar de pied ferme. xam nga man ñëwoon naa fi ni la man benn émission je pense que am na deux mois de cela. Mm-hmm. doon nga ma laaj ci Macky Sall ma koy waaf di loo ma ci laaj mais mais benn émission ma ñëw laajoo ma sax ma ne la tey moom Macky Sall kese laa bëgg nga may laaj ma la ci tontu parce que jour boobu damaa am ci moom révélation bu leer nañ ok man tant que awma bu leer du ma wax ba ma demee ba sama borom wan ma lu leer nañ ni ma Macky Sall Cheikhul Khadim mooy nara a téy ci loxo muy wàcc Macky Sall su bis bu dee dem ci élection yi 2024 mhm. bu leen yaakaar ne kenn lay am devant lui de Cheikhul Khadim lay nar am devant lui xaw ma xaw ma lu mu am ci muriti mais Cheikhul Khadim de génn na génn na loxoom ci génn na loxoom ci Macky Sall. Ah su fekk man bi ma la ne bi may ñaan bëgg xeex moom ci baatin Touba laa dem. dëgg la bëgg a wax ak Cheikhul Khadim man lu ma bëgg lu ma bëgg ci yàlla. Mhm. Seydina Limaamu laa koy ñaan. dëgg la. lu ma bëgg ci yonent bi Seydi Hajj Malick laa koy ñaan mais lu ma bëgg ci Qur'anul Karim Cheikhul Khadim laa koy ñaan. man xam naa la may wax. ok Cheikhul Khadim la yàlla ak alxuraan. mooy borom alxuraan. Mm-hmm. waaye waaye yonent bi salaahu salaam. li ci Seydi Hadji Malick am man de xam naa lam ca am. ok tuutiwul de. mais sànq waaye limaamul mahdi. waaw ah limaamul mahdi limaamul mahdi ci keppaaru yàlla la jógee. dëgg la leeru leeru mais bu ñu sori ci loolu mais daal. voilà li ma li ma li ma bëgg a wax mooy Macky Sall day a xóot. Uh-huh. Macky Sall daal Touba gi mu muy dem suba. xaw ma tey tey tey euh, Macky ni mu jàppee kilifa diine yi metti na ñëpp moom euh, yàlla baax na bale ko fi dese bariwul waaye Touba du fa am dara man maa koy wax murite Cheikhul Khadim ndax mës na koo teg loxo parce que ñaanaloon nañ ko fa moom bi may dem di ñaani pour mu wàcc lan ma wan mu jiituma ma ci sàppay kabar Touba. Mm-hmm. ma xam ni kon am na am na ci njaboot ki koo xam ne da koo teg loxo muy Serigne Lamine Bara Mbacké yi ok ku ko ñaanaloon la moo tax ñu samp ko mais mais dama ni la ko sampoon simpi na ko ah Macky Sall sampi na ko ci baatin Macky Sall na ci baatin te ku mu sampitim xoolal te et mais ci élection yi ñu jëm parce que président Macky Sall dina choisir li nga xam moom mooy dauphin dauphin bi biig rek li ma ci sama borom wan moom Macky Sall est très technique ah bon biig la ma yàlla wan quatre fiches yuñ ko jox suñu foogee ni le choix de ces candidats da koy nar defe ci ay Euh, bëgg-bëggam di xool kii laa doon bëgg kii non Macky ay fiche la teg des fiches boo technique mais est que deful sax euh, euh, benn sondage ci ñi bëgg a jël affaire bi affaire ay diggante Amadou Ba Boun Abdallah et quatre fiches daal gis naa ko. Abdoulaye Daouda Diallo waaw Abdoulaye quatrième fiche bi xaw ma kan la. tu as vu mais mais moom xoolal sa se base sur des faits scientifiques Macky ni mu defoon ba jël réew mi en 2012. lay tegaat techniquement ba jëlaat ko 2024 suñu joxul est-ce que tu sais que 2012 dafa xool moom c'était le ministre de l'intérieur mm-hmm. xamoon na pourcentage am le vote de Fatick et le vote Halpulaar 12 pour cent la mu xam ne 12 pour cent mënu cee génn deuxième tour il a fait le tour du Sénégal deux fois def di porte à porte porte porte boobu mu def moo yégal le taux de Macky Sall de 12 à 26 pour cent il est technique choix bi muy choix bi muy bëgg a defee itam nii. Mhm. choix technique lay def. mais mais kan nga jàpp ne euh, soowu président Macky Sall ci moom la koy porté. man daal gis naa ñeenti fiche gis naa ci benn bu élevé benn bu moyen ak benn boo xam ne dara nawu ci quatre fiches la xaw ma nag euh, soit tout mais mais moom il va se il va se baser sur des fiches techniques pour choisir. mais dama dégg am ñuy wax que ni président de waxoon na ni je ne ferai pas un choix affectif choix technique lay def Macky Sall technique. voilà mais euh, dëgguma la sax mais dama déggoon am ñu wax que ni euh, surtout ñi nga xam ne dañu liggéey ci wàllu baatin ak li ni mel que ni président Macky Sall kenn mënu koo cerner fenn maanaam foo koy xaaree feneen fi lay génne. man de personnellement. Euh, mhm. li may wax ci wàllu vidéo Macky Sall de franchement man xool naa ko sama borom wan ma ko ci élection 2024. waaw gis nga ko ci élection 2024. bon xaw ma nag. franchement yàlla sama benn sœur ndeysaan ndey Afsa Seck yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana dama ñëw bi ma bi ma sama borom di may lii ma commencé ko dans ma famille luy xew ma ñëw ci seen biir wax leen ko moom am na benn benn benn oto bu mu doon waxaale kenn yëgu ko jëkkëram sax yëgu ko ñuy waxtaan mu ni ma man dama yaatam ci parce que aw ma oto ma ni ko déedéet gis naa la ngay waxaale benn oto bu verte ki dem mu ni ma moo di jaaxal nga ma mu ni ma oto boobu kenn yëgu ko sama sër boobu bi ma ko nee man lu ma sama borom wan ma gis ko dafa dafa ma xoolaat daal di xulli ay bëtam mais ma ne ko à quatre-vingt-dix-neuf pour cent mu ree ni ma soo ni soo ni ma wan cent pour cent ma weddi la gis nga euh, li la sa borom di wan euh, yàlla mën na la déey nga dégg mais mën na la wan li lim lay déy moom day leer du am changement mais li mu lay wan yow yaay génn mottali def ay complément ni lii laa gis. foog ni lii mais Macky Sall daal man sama borom wan nan wan nan ma loo xam ci élection 2024 yi. voilà parce que moom nee ki nga xam ne moom lay tànn. dina ko gunge ci élection yi. gis naa ko ci biir d'une manière non Macky Macky du ko yónni rek bàyyi ko mu dem de. day topp ci gannaawam effectivement loolu tam looloo tax man mi li ma tax a jóg nii. Mhm. Euh, franchement euh, waa F24. voilà mais bala ñoo ñëw ci waa F24 tonton Modji parce que itamit dafay baax côté boobu ñuy leeral ci euh, mbirum mm. Ousmane Sonko grève de la faim président Macky Sall euh, demoom foofu noonu ca Touba ndax ki nga xam ne moom mooy le xalifa général de Mourides ki nga xam ne moo waa coalition Yewwi Askan Wi demoon nañ seeti ko sëñ Muntaxa yëkkati li nga xam ne moom mooy tàndarma jox ko ki nga xam ne moom mooy pour jox ko waa coalition Yewwi Askan Wi pour ñu jox ko Ousmane Sonko mais malheureusement tàndarma ba léegi Ousmane Sonko mënu koo lekk sëñ Muntaxa yónnee na mais malheureusement li ni mel amul suite euh, mooy rek li may wax xam nga loo xam ne nag euh, communication bi ñu ci am yow li nga ci am laa ci am waaw bon Ousmane Sonko pôle de communication mm-hmm. li ma leen di demander mooy qu'il cherche à parler d'une seule voix parce que suñ ko defoon franchement ñun dinañ xam fan la ñuy taxaw koi mhm. te ñi ko bëgg a jàppale itam dinañu gën a am euh, fu ñu taxaw pour xam ni kii soit dañ ko bëgg a liquider physiquement et puis ñun euh, li ñuy bëgg a wax mooy euh, dafa am ñoo xam ni disparition Ousmane Sonko da di arranger. Mm. surtout la. la France. soo gisee ñoom euh, ni nu téyee Afrique li leen Ousmane Sonko wax yéen wuti leen wuti leen feneen fu ngeen mën a sukkandiku pour di suqaliku ok ñoom bëgguñu lâcher les colonies là ba tax na seen loxo day ne ci dafay dugg ci Afrique ci ay Cuba ci ay tentative assassinat ci li ma doon wax ci sama émission bi passé la capitaine Thomas Sankara c'est le François Mitterrand euh, c'est le président François Mitterrand moo moom moo orchestré l' exécution de Thomas Sankara complot loolu la boo xam ne ba léegi mi ngi topp l' hexagone l' état français te bon sax bu fekkee ne ambassade bu France ñu ngi ñuy suivre mm-hmm. nanu xam ne les peuples d' am na mer gu ñu leen dencal quoi et on a beaucoup de suspicions euh, envers la France. position am na leer Macky Sall ni mu téye Ousmane Sonko ni empêcher un prisonnier day am euh, ay visite euh, ay jabaram. pendant pendant kii am proche du Ousmane Sonko rek lañ fi mës a téye comme un. prisonnier prisonnier politique. le premier ministre euh, Idrissa Seck bi nu ko fi téye mais jabaram a doon toggal muy lekk. Mhm. ba sax ba mu doon yuuxu naan feebaruma jabetuma dara jotuma dëgg la bëgg a yuuxu ni suñ ko fa rey nañu xam ni dañ ko rey mais Ousmane Sonko tim bi muy dugg ci seen loxo euh, nit ku ay problème de nerf da nga doon souffrir mais dugg ci seen loxo génn fii dans deux ans mu maladif ak yooyu yëpp ñun ñëpp on est inquiet de ça waaw ñun franchement Ousmane Sonko li ci li ñu ci yàlla wan dafa leer dafa am yaakaar gu ñu am ci moom mais Ousmane Sonko ak 2024 parce que euh, ñu bëri ñu ngi wax que ne ñii ñu ngi wax que ne rajee nañ ko ci liste électorale du bokk ci élection yeeg li ni mel est-ce que tonton Mody vous croyez que Ousmane Sonko dina bokk ci élection yu question boobu depuis février mhm. première invitation bi ma am fii mhm. euh, journaliste bi ma fi invité woon mooy mooy Baara Mm-hmm. bi ma laajee Ousmane ba may wax ci Ousmane Sonko doole dooleem ji yàlla def ci moom. Mm-hmm. ma ni leen day wis wisal rek war a taw tawagul sax. taw gi mu taw dënnoo ngi yegg si le tonnerre va gronder da leen di bett. yooyu yëpp ba ma koy wax mu laaj ma ndax Ousmane Sonko day jël réew mi mais su fekkoon ni bakkan lay wax dama ko ni non laaj ma. ci leen ma wan ma tontu la ñëw ma fi pour waxee sama xalaat ñëw ma fi pour waxee bakkan ñi doon waxee bakkan yépp dañ doon persister di signer ni Ousmane Sonko sera candidat en vingt 2024 ñëpp tous les analystes savent que ni Macky Sall organi euh, bépp élection bu mu organiser Ousmane Sonko du ci bopp loolu kay moom euh, jarul sax ngay am baatin loolu moom jarul baatin pour xam ko. te élection yi président Macky Sall moo ko Macky Sall élection yu muy organiser Ousmane Sonko du ci bopp. kooku moom. lu tax loolu. ah mais non loolu lu tax loolu loolu mooy me demande ne ça je te dire que c'est du Macky Sall des fois on te une question tu réponds simplement que c'est du Macky Sall tout ce qui se déroule comme ça nii ce n'est mm-hmm. pas du droit ce n'est pas du c'est du Macky li ma neex mooy am ci réew mi point mm. amul sëriñ amul. même puissance étrangère yi sax mu mënuñu ci dara Macky Sall day dérouler plan ni mu ko bëggee. ok donc bon waa Pastef moo tax man euh, li ma doon wax ni euh, mbiru nguur gi yàllaa ngi dérouler moom parce que mooy borom allahu malikul mulki tuutil mulki mantashahu mhm. lam ca wax leer na ñu ci aaya bi ba mu daanu mhm. nguur moo ko yor moo koy dérouler Macky ngi dérouler Ousmane a ngi dérouler mais daal daal Ousmane man problème bi mooy Ousmane Sonko incha allah dama ni la muy añ bu teel muy añ bu naaj di dañ ko yàq. ok incha allah. incha allah comme rek ni ngeen di togge des fois gaz bi jeex. te doo ko sóor. Mhm. nga waroon a yàq midi wala une gaz bi jeex ba muy jeex bett na la mais nooy def da ngay dem dawi wuti gaz. le temps bi nga koy nar a wuti soo naroon a bis boo naroon a lekk a 14 heures mën nga ko añee à. 16 heures 17 heures Okay. tous ces intrus tous ces choses là yi Macky di dérouler yëpp guddal jël la rek. Macky mm. Macky Sall il fait du guddal jël la. ok parce que soo dee ñoom yaakaaroon na ni la jeunesse a abandonné Ousmane Sonko. voilà mais xoolal li am ci euh, dans les stades. dans les stades voilà. te te dinaa la wax dara. man li ma sama borom wan ci Ousmane Sonko. su leen ko euh, wanoon euh, non da ngeen non gis nga Ousmane Sonko. Mm-hmm. doole jii ñu gis ci moom ni nii ñu naan xale yi. li war a ànd ak moom xam nga fu ngeen ma vidéo yi dem leen ci man dama leen naan lii màgg di ànd ak moom rek laa gis loolu ma gis noonu non je te le daan daan nañ ko xayma wax mooy sama wax tout le temps màgg di ànd ak moom rek gis gis nga gis nga Ousmane Sonko lii màgg di ànd ak moom saa bu yegsee non sa sa sa sa xoolal munu ma la ko munu ma la ko expliquer yàlla ci xol yi xale yi la ko def. Mhm. d'une manière indélébile. te Ousmane Sonko suñu foogee nii yaakaar ni dinañu dem ba ci kanam mu def fi benn faux pas ba booy génn ci moom man dina ma koy wan mbaxane lan ma wan bopp lan ma wan ak leer ak dàll mhm. mbaxane bopp lan la xam-xam la muy wax la muy def da koy xam leer la leer la mm. euh, kii yi ma gis dàll yi bu sol fa mu jëm tey xam fu mu koy teg moo tax kuy foog nii dina dem ba ci digg bi euh, fakkastalu daanu gis nga même Macky Sall bi mu ziare jee kii sëñ Lamine Bara lu mu ko jox. lu mu ko jox ay dàll yu marakis la ko joxoon lan lan la def ci dàll yi lu tax joxu ko lu tax jox ko manto lu tax joxu ko. yëre kii lu tax jox ko mbax ne léegi marakis boobu la muy signifié. ah mais marakis dàll c'est la protection di nga dox ba yegg fa nga jëm doo fa xasalu Macky Sall jël na pouvoir bi euh, da wa ñaanal ma ma jël ko en 2012. est-ce que fa na benn yoon. Macky Sall ba muy ñëw di yoot kenn yëgu ko sax. dëgg la 2012 dem na Touba ñu ñaanal ko mu yoot nànk ñëw jël affaire bi dem yoonam. donc franchement Ousmane Sonko man. tout man benn problème rek laa am di ñëw fii di ko fi wax tout le temps. mooy lan mooy intégrité physique am. ok man mooy sama souci quoi. Mhm. liy dugg ci gémmiñam ak liy dugg ci ay venam lan la. waaw entourage am ay avocat am na ci peuple bi xam la. Euh, lan parce que gars yi jege dañ ko trop ni ñu ko jegee nii mosuñu ko jege. Mhm. Ousmane Sonko ni mu nekkee ci loxo gars yi nii ni ñu ko jegee mosuñu ko jege. ok te kooku on doit tous être vigilance se positionner. pour maanaam euh, nekk des sentinelles autour de Ousmane Sonko. man am na benn vidéo bu ma fi defoon muy vidéo bu 6 minutes. Mhm. Euh, maa ngi doon wax euh, Ndaya mu defaral ma ko pour ngeen dégg ci li ma ci wax dama ni woon sallallahu alayhi wa sallam xare Badar. Mhm. bi ko yéefeer yi songee ñu nekk mille et quelques. ay mille et quelques la ñu woon. Mhm. yonent bi bi mu xoolee saaba yi li mu trois cent treize sahaaba mooy le de votre. télé la li tax ma bëgg mhm. télévision bi chiffre bi la quoi dafa dafa baati ne trois cent treize mooy li mu jëy suñ ñoo xeexoon xare badar mhm. yonent bi dafa xool lim bu ndaw bi xam nga lu mu wax yàlla da ko ni sa lim bu ndaw bi soo seetaanee ba lim bu rëy bee faagaagal lii lim bu ndaw bi kenn dootu la jaamu ci kaw suuf loolu la yonent bi waxoon yàlla ni ko sa saaba yii la gëm soo sàgganee ba yéeféeri fa faagaagal leen kenn dootoo am ku la jaamu ci kaw suuf gis nga génération bii Ousmane Sonko mii suñ ko ñàkkee di doon toggaat génération lëmm tutta duñ ko amaat loolu la yàlla def ci moom moo tax dañ koy gunge di ko jàppale mhm. na na ñépp taxaw autour de Ousmane Sonko pour sa survie bakkanam mais nag pour vingt 2024 bi moom forcé samp par force nañ ci nekk reyante mais bu mu jaay bakkanam Euh, grève de la faim bi dafa am fu muy yem. Mhm. fu muy yem pour mu génn. saa bu ko naree dépassé man ma xam ni liñ ma waxoon ak liñ ma wanoon leneen a ngi bëgg am. man dinaa ñëwaat fii yuuxu ni ah lim baa ngi date baa ngi bëgg a passé. waaw parce que taxawaat jamono ji mi ngi ci troisième jour euh, grève de la faim. grève de la fin bi moom su fekkee ne. da koo teg comme stratégie. man de moo yore bon stratégie am doon naa wax ni moom xam na la muy def mais nag bon. xam nga xam nga xam nga le pronostic vital xaw ma ndax jot na engagé am déet parce que mhm. y a de nombre de jour yoo xam ni soo ko defee en mode de grève de la faim mhm. votre pronostic vital peut être engagé. effectivement tey rek euh, maître Ciré Clédor Ly li ñu ah, ngi doon wax. xaw ma ndax c'est engagé ou non mais mhm. daal euh, waa F24 euh, li dana yokk a tax ma ñëw. tey ci jeudi bi vendredi bi mais ci plan mais ci plan B bi nag tonton Mody balaa ñoo dugg ci vingt 24 après. Euh, ci ndax ñu ngi wax ci da nga bëgg ñu euh, vidé. voilà euh, léegi. ci plan B wu. waa ndax ndax ñu bëri ñu ngi koy wax ne plan B. Pastef bien vrai ka ne Pastef ñoom nee na wutuñu plan B. Pastef da ngay remplacer koo xam ne il est remplaçable. Ah. Ousmane Sonko kenn la ci génération te ñi ko wër ñëpp yàllaa dogal loolu. kenn mënul remplacer Ousmane Sonko. Ousmane Sonko kenn la ko yàlla indi ci jamono. ok di ko fi remplacer naan mën na ko wutu mënul nekk. lenn nag mën na nekk gaa moom. man mën naa gëm ni waa Pastef. soo bëggee di dem ci xeex. xeex soo ci dee dem en en tactique militaire. doo jël toutes tes armées doo jël sa benn armée yépp nga engagé ko ci benn front. militaire yi xam nañu li may wax da ngay jël soo amee des hommes des fois nga jàllale ñii ñu jël gauche ñii yegg droite même xare uxut mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam la tactique militaire bi mu defoon bi ñu ko wàccee defuñu ko ci lañ leen duma xare uxut yonent bi dafa ni woon les archers taxaw leen ca kaw te bu leen ko wàcc 70 la ñu woon mu ni leen yéen taxaw leen positionné wu leen nii ñii mu positionné gauche ñii mu positionné droite pour que ñu encercler l'ennemi Pastef benn candidat sax dafa amul sens muy dem mais euh, mm-hmm. li ma li ma li ma li ma bëgg wax mooy mm-hmm. euh, bon kii euh, li ma bëgg a wax mooy waa Pastef nanu jël maanaam mm-hmm. nanu jël par exemple la machine de Pastef ñu diviser ko en trois parties la candidature de Ousmane ko kese nan ko samp wutal ko deux millions de parrains dafa dossier bu correct déposé ko conseil constitutionnel. ok yóbbu ko fa xam nga Ismaïla Madior Fall mi génn di wax. moi franchement j'aimerais que ñu xoolaat la CAMES.